maa ngi leen di gërëm di leen sant tey euh, njaboot bu jigéenu Afrique ñoo ànd ak organisation maritime international pour am loo pour amal benn ndaje fii ci dakaar pour waxtaan ci rôlu jigéen ci activité maritime ndaxte

nga gis jigéen ñi donc nekk au niveau euh, ci liggéey logistique léegi-léegi léegi leen gis ñu dawal ay ndaraan ñu ngi gis ñu dawal ay calmar ñu ngi gis ñu dawal ay forklift ñu ngi gis ñu dawal ay camion nekk ci biir conteneur yi ak manœuvre am nga xam ne boo demee ci biir bateau yi chief mate yi dañuy nekk jigéen ñiy defar bay plan yi dañuy nekk jigéen kon ñu xam ne am na révolution boo xam ne bii dugg na ci biir secteur bi loolu moo tax euh, président la république ak premier ministre ni ma ci biir secteur bi na nga ci def sa kamtalaay kattan ba nga xam ni bii discrimination positive daf ciy am moo di foo xam ni fii war nañ faa mën a jël góor wala jigéen bu fekkee ni jigéen ji moo ëpp xam-xam jigéen ji moo ëpp taxawaay te moo ëpp mérite ñu bañ ko néewal doole ñu jox ko li nga xam ne li mérité na ko jigéen ñi nga xam nag ñoo nekk ci Afrique yëpp ñoo fi dajee tey pour mën a revendiquer seen ay droits manifester intérêt bi ñu am ci secteur bi. loolu moo tax président de la République ak premier ministre ne mën naa ñëw ma gunge leen seen ay travaux ubbi ko nekk ak ñoom ba travaux yi jeex ma ànd ak ñoom jël seen ay conclusions xool naka lañ koy doxalee ba nga xam ni bii dinañ mën a am réalisation bi. te association bon di liggéey ci géej bi bu. Afrique de l'Ouest ak Afrique du Centre ñoom ñoo daje fii tey Sénégal euh, pour waxtaan ci problème yi nga xam ne tey àdduna bi ñëpp a ko amandoo mooy euh, problème mu changement climatique problème mu tey euh, jigéen yi ñu jox leen seen wàccuwaay normal ci côté maritime bi ak problème mu tey lu nga xam ne dinañu utiliser de façon durable lool looloo ñu fi looloo ñu fi àndi tey Ah, ñu ngi yaakaar ne que rek si ñaari fan yi dinañu waxtaan génnee conclusion yu nga xam ne dina servir àdduna bi mais dina jàppale plus état du Sénégal dans ses si ñaari fan yi peut-être lu ñuy gën a appuyé wu mooy poste décisionnel yi femmes yi mën see nekk au maximum. femmes yi mën a joxe seen xalaat fu fu am tey benn góor bu ñu tourné ñu gis beneen jigéen si wetam ñu mën a joxe seen xalaat bu baax a baax.